loolu ñu ne mënta ñàkk nañ ci espoir bi ci des benn Macky Sall bi mu mayee imam Ndao woto léegi matul ñetti may na ko woto. bi mu léegi matul ñetti weer moo tax quand j'ai entendu se doomam ji ak ay ay ay ay imam taalibi ko mais booy wax waroon naa wax may na ko woto booba léegi matul ñetti weer. mato bi nag imam ñëw ko ko Macky Sall jékki ko tam dëkk bitim réew. moo ñëw Sénégal dem seet imam daw di waxtaan ak moom pour mu gën a xadaram ji wàññi bi mu jógee ci moom mu ñëw di waxtaan ak président Macky ci waxtaan moom mu ne ko dama bëggoon nga may ko woto pour di ko mu faciliter ko ko L200 booba léegi tax tamit yéen bu ñuy wax loolu tax nettali wuñu ko lu tax ñoom waxuñu ne mais dañu

moo tax tamit yéen bu ñuy wax loolu tax nettali wuñu lu tax ñoom waxuñu ne Imaam Ndao li ko te dem France mooy dafa ci combat bi mu nekkoon mënu ci woon na bokk ñu di ko transféré bitim réew. mais ku xam antécédent yi nga xamante ni Imaam Ndao amoon ko ak bi. Imaam Ndao moom ko xam na ne Macky ñu ngi ñu ngi dégg lépp li ñuy wax man ci famille am laa bokk ak ñeneen dañu nekk ci dëy mais le moment venu on appréciera pour tontu yëpp parce que li ñuy wax dara amu ci dañuy wax lu ñu xam ak lu ñu xam dara amu ah, dama ne li ñuy wax dara amu ci. et le moment venu et le moment venu. donc Macky benn dëgg. ah oui. foofu la c'est pas vrai. du benn dëgg. foofu lay yemagum bala mu ma parce que lu xew foofu xam naa amul luñ fay def te duñu ko yëg te duñu yëgal la preuve la dernière visite de imam def la yem fois à Dakar le 17 juillet 2022 suma kër la yem keroog la Dakar ba niñ ko fi indiwaatee bi feebar ça fait deux